mbokk yi nuyu naa leen képp ku wax ne loi d'amnistie bi pour Ousmane Sonko la pour Pastef ak détenu politique yi waxoo dëgg madame la ministre dama bëgg nga wax samay mbokk député ak askan wi ne président Macky Sall bu bëggee génnee détenu politique yi mën na def lu ñuy woowee abandon de charges dama bëgg nga wax bi euh, askanu Sénégal ne président Macky Sall moom mii tëj injustement arbitrairement kii di président Ousmane Sonko bu ko bëggee génnee mën na def abandon de charge madame la ministre dama bëgg nga wax askan wi ne président Macky Sall moom mii nga xam ne dafa xañ arbitrairement injustement Ousmane Sonko ses droits d'être candidat te du dëgg du yoon président Macky Sall mën na def lu ñuy woowee modification de l'article L57 du code électoral te ma déposé woon fii proposition de loi boo xam ne depuis 7 mars 2023 kenn xoolu ko kenn et personne ne s'en est offusqué personne ou presque ne s'en est offusqué madame la ministre loolu nga war a wax président Macky Sall loolu nga war a wax askanu Sénégal ne kon waaw mën nañ génn mais du amnistie rek moo am pour mu génn léegi nag dama bëgg madame la ministre nga wax askan wi ne lii tax président Macky Sall jaarul ci abandon des charges ak modification article L57 du code électoral mu jaar ci amnistie c'est parce que moom mooy le parent des tortionnaires moom mooy le parent des assassins moom mooy le parent de ñi nga xam ne ñoo faat boom nit yi moom doomam sax ñu ngi koy tudd ci recruter ay nervi en réalité loi bi du pour Ousmane Sonko du pour Pastef du pour askan wi du pour détenu politique yi en réalité c'est pour le président Macky sàll ay mbokkam ay xaritam ak góor ak jigéen ñi nga xam ne moom la doon jëfandikoo pour torturer askanu Sénégal pour rey askanu Sénégal c'est ça la vérité parce que waru leen wax askanu Sénégal bi ne pour dab li mu bëgg a amnistie rek moo fi nekk am na leneen bu jaarul feneen jaar ci amnistie boppam la bëgg a amnistier boppam la bëgg a protéger